waaw liggéey bi dax dëgg fa yàlla am na yoo xam ne mu ngi dox mais am na loo xam ne dafa des waaw. mais am na changement nag dëgg fa yàlla mais nag euh, saa na gën a yokku rek waa te it euh, li may dégg ci réew mi man de bu ma soñoon moom mu gën a muñ tuuti quoi parce que njiit yombul. il un grand changement changement bu mag amul depuis Ablaye Diack ba nag mu tëti ñeneen ñi fi topp ci ab Ablaye Diack. dara xanaa bale mbedd mi te kondir yaa ngi déversé wu ndoxu kondir yaa ngi déversé ci mbedd mi waaw à part loolu gis ñu fi luñu luñ fi liggéey man de sa nga wax dëgg yàlla sentir ma ci Kaolack lenn lu lu lu lu lu mairie Kaolack def mu commencé ci liggéey liggéeyi Kaolack kër yi mairie Kaolack ba ma leen xamee ba léegi nit ñi daggee attribuement yi dara baaxu ndax waroon nañu xool kër gu nekk boroom kër ya fa nekk ay boroomi kër boroomi kër fa suñuy bind ñu oote ci mairie bi ci rajo bi ñëpp ñëw quartier bu ne ñu xool ñaata kër fa am ñu xool kër gu nekk ñaata nit fa ne suñuy dagg benn quartier ñu jox ñii ñëpp mënuñoo am waaye ñu jox ñii bàyyi ñii su beneen ne bu ñuy daggaat jox ñii waaye ñu am doole ñoom lañuy jox kër yi ñu jënd ko ci lan ci ay tappale sëriñ boobu moo xam nga euh, mairie moom affaire yu continuité la parce que ku fi jógee tamit boo àndee andi def fi dara am keneen ku ñëw koy xëy na peut-être mën nañ ko bàyyi tuuti quelque temps mu daal di am réaliser ay projet xëy na tamit mi ngi ci yoon mais nit ñi dañoo yàkkamti mais am na lu des nag lu bari noo xam ne mun nañ bon ñëpp mun nañ cee seen bët mais li ñu koy ñaax rek mooy mu gën a jege askan bi rek xam seen doléance après mu daal di ko jéem a saafara nan ko ñaanal nan ko ñaanal nous euh, ngi il faut que nous am patience Voilà, am réew nous lay quoi du il faut aussi état bi tam voilà donc nous nous la nan ko Nous koy ñaanal dal. bon vent lool bax. Mangi gis euh, ce appelle une innovation man nga tok ba minuit nga am dem jëm te wuti hein? yëpp ay kii la yoo xam ne ay kii yoo xam ne dafay dafay dafay xumbal réew mi dafay neexal réew mi ah maa daal je suis très très très content nan ko ñaanal jàmm. moom ñetti problème moo am Kaolack maanaam euh, wàllum caniveau wàllum bumbalit mi ak euh, wàllum euh, leeral dëkk bi ñun Kaolack bu ñu amee ñetti yooyu rek ak yoon yi muy ñeenti yooyu rek bu ñu ko amee rek war a Kaolack war naa développé bu baax daal te yoon yi moom des na trop fii ci Kaolack. na ci état bi japp maire bi japp ci mu dem parce que Kaolack état nim ñu wara jappalé jàppale ko wa Kaolack parce que tout le temps dañ fi gagner dañu wara jappalé maire bi maire bi jappalé ñu ñu mën wa ñun wa Kaolack ñu dem. dama leen wax rek ngeen dem ci euh, yoonu garage ñor pont bi nga xamné ne geej gi nga xamné tay kenn gisatu ko sax bo fi jaaré di jëm ñor doto gis sax euh, geej manam deuxième pont biñ ñu biñ bi réserve jaay nañ jaay nañ lepp léegi ngelaw lu nit ñi nooy sax amatuñ ko Kaolack bu bu weekend jotee Kaolack saturé biir Kaolack yëpp sature ndax lan amuñ corniche dëkk yëpp am nañ corniche ba mu des Kaolack ba pare Kaolack moo nekkoon premier puissance du commerce du Sénégal léegi wax xaw ma premier waaye ba moytul moo jël ndaar maire bi mooy premier magistrat bi tey su gisoon tey lu baaxul ci Kaolack war naa taxaw.

ñu ngi wax dafa set man Kaolack gisuma setam ville bi yow ya gis nga ni mel ñu koy balade naam waye Liko saltel ñun xam nañ encombrement bi filmé len encombrement bi nek fi marché bi saltel la def non candidat présidentiel man dama japp ne lima jëk wax rek mo juñju lool yépp dama ne la nit ki su fekkee patriote nga da ngay ñëkke ci sa kër ñëkke ci sa euh, gox bi sa quartier C'est ci sa raison C'est rek moo ëmb li ma bëgg wax su kon c'est inutile. man amélioration bi ma ci gis mooy mairie léegi boo fa demee say kayit tandis que bu njëkk ba nag dem ñu naan la tey suba gannaaw suba ñëwal nii mais dem bu fekkee ne sa mi ngi ci ordinateur bi koy jot nga fay Euh, ci ci kaw ñu daal di la ko seetal archive ñu seetal la daal di la defaral nga daal dem sa yoon. waaw bu fekkee ne mën na di defar coté voirie yi xam nga moom développement ci voirie yi la bokk moom bu bu fekkee ne tali yi baax nañ nit ñi di mën di dem di waaxu di dem di ñëw mais fekkee da nga bëgg dem fii nii bu war a faa def une heure de temps bon bu boobaa day métti mais bu defaree tali yi rek. la voirie rek moom moom ci développement la ba Kaolack na développé. canal bi moom dafay déverser wu moom tout moment. même caniveau yu ndaw yi nekk ci biir dëkk bii itam day dañuy déversé wu waaw oto yi euh, romb euh, bu tisee ci yére nit ñi lay dem wala xale yu ndaw yi fo ci euh, kii bi ci ndox mi te ndox moom yëpp xam nga ne dara baaxu ci bale gi moom bale gi moom macha allah waaw suba ngoon ñi ngi bale waaw Kaolack moom set na moom wax dëgg yàlla moo moo dàq li fi newoon C'est une demande et je suis bien content parce que c'est un cas quoi. Voilà, donc il faudra que le temps se fasse.